2020. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques suivants. Sur les 31 tests réalisés, 9 sont revenus positifs. Il s'agit de cinq cas importés. Un cas contact rattaché au cas numéro 5 déclaré positif le 11 mars 2020. et de trois nouveaux cas de la transmission communautaire. À ce jour, 56 cas ont été déclarés positifs, dont 5 guéris. Par conséquent, il y a 51 cas encore sous traitement. de santé des patients hospitalisés à Dakar à Touba évolue favorablement. au regard de l'augmentation des cas issus de la transmission communautaire. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte, exhorte les populations au strict respect des consignes de prévention et rappelle qu'aucune tolérance ne doit être permise dans l'application de ces mesures arrêtées. ma ñëw liir communiqué bi muy ñaar fekk ñaar fukkeelu communiqué bu ñu commencé gestion wu crise bi ba léegi tey samedi 21 mars 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat wu test yi xamante ne def nañ ko tey si fanweeri test ak benn juróom-ñeent ñëw nañ nekk ay test yu positif am na si juróom yoo xamante ne moom la ñuy wax kaa importé mooy cas yu jóge bitim réew am na benn cas boo xamante ne cas contact la contact boobu ñu ngi ko rattaché si cas numéro 5 bi ñu testé woon le 11 ak ñetti cas bees yoo xamante ne transmission communautaire la te rattaché wuñu ko si cas numéro 5 bi tey fi may wax ak yéen juróom fukk ak juróom benn cas comptabilisé nañ ko ci Sénégal am na juróom yu ci wér bon nag juróom fukk ak benn ñoo nekk hôpital ñu leen di faj seen yaram mi ngi tame ñu ngi leen di toppatoo bu baax waane boo xoolee kaa yi ni muy augmenté ñuy wax ne mbir mi toll na foo xamante ne dara waratuñ ko tolere ci comportement boo xamante ne day mettre population yi en danger ñuy wax sénégalais yi ñu respecter bu baax consignes yi xamante ne ministère la santé jox nañ leen ko ak mesures yi xamante ne jël nañ ko pour aar askan bi maa ngi leen di gërëm bu baax.